dal leen ak jàmm jamono ji liy toj Sénégal moo di vidéo ak caractère pornographique yi nga xamante ni publier nañ ko ci réseaux sociaux yi ci yooyee vidéo ñu mën ci gis ay xale yu góor yu ak xale yu jigéen yoo xamante ni seeni at matul 18 ans maanaam ay mineur lañ yooyu lay nag ñi ngi ko filmer ci bisu korite ga ñenn ci askanu Sénégal nag nen nañ moo nga xewee ca cité mixta waaye version bi nga xamante ni mool ma police joxe yooye vidéo ñu ngi ko tourné ca Anmariste yi la image yu doy waar nag tax na ba Sénégal kenn bind te jotut sa gémmiñ daanaka ñëpp ñu ngi ciy wax ñu bëri ci askan bi nag dem nañ ba naqarlu ko ndax jëf ju ñaaw ji nga xamante ni xale yu ndaw yi def nañ ko ci bis bi nga xamante ni ci lañ doon célébrer fête bu mag bi ci jullit yi Sénégal mu di korité li waral coow yi nag ñaari vidéo la ak caractère pornographique ak ay ojo yoo xamante ni ñu ngi ciy dégg ñoom xale yu jigéen yi ak yu góor yi di ci menacente ci vidéo bu njëkk bi nag ñu gis ci ab xale bu jigéen bu am teint clair set nekk xale bu beneen vidéo bi nag ab compilation la ñu jaarale ko ci application bi di Lomotif te boobule vidéo nag gis nañ ci ñetti xale yu góor ñu seq benn xale bu jigéen maanaam di ko def loolu ñu naan partouche lu jëm ci wàllum audio yi nag mën nañ ci dégg xale yu jigéen yi nga xamante ni nekkoon nañ ci soirée boobee ginnaaw publication vidéo bi ñu ci yëkkati ay menaces ci audio bu njëkk bi nag ñu déggaat ci beneen xale bu jigéen mu naan ñëwal fii rek ñu dem këram daal di nangam tan waaye nag comme dañoo nekk ci jamono joo xamante dara mu kenn ko nëbbu lépp la ñuy filmer ginnaaw scandale bi am na beneen vidéo boo xamante ni publier nañ ko ci réseaux sociaux yi ca boobule vidéo ñu mën ci gis waa police di jàpp ñenn ci ñi nga xamante ni feeñ nañ ci vidéo yi bokk na ca ku ñuy wax Malick mi nga xamante ni moom lañ jàpp ni moo organisé woon rencontre boobee jamono ji nag laaj ji samp moo di fan lañ tourné vidéo yooye ndax kat ñenn ñi ñu ngi si Cité Mixta la waaye police moom version bi mu joxe moo di yi mu moo di ban téléphone lañ ko filmer ak kan moo ko filmer waaye itamit kan moo diffusé vidéo yile ba internet yëpp daat ci jot lum ci mën di doon fii ak police di terminer enquête bi am na ay jeunes yoo xamante ni ñu ngi leen di commencé jàpp kenn par kenn lum ci mën di doon daañu leen toppal xibaar bi ba fa mu yam jërë ngeen jëf